salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar a baax aha waaw loolu donc li may def mooy damay jaar central équipement rek li ñu ci bagage ak moo ñu ngi dem incha allah bu soobee yàlla central bi équipement dafa centraliser lépp loo soxla ci équipement cuisine ci seen ndaje diine yu mag lu si mel ni màggal wala gàmmu benn bërëb rek sa aajo daal di faju central équipement di jox lépp luy taaral kër di bakkanal dund gi Central Équipement. Venez vous équiper à moindre coût. Nos prix défient toute concurrence. La qualité est notre credo. wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi rawatina ñi nga xam ne ñi ngi bàyyi xel dëkk bii di Touba waaye kàddu gi bàyyi ko fii ci jumaa ju mag ji ci e, commission bi nga xam ne ñoo baaxoo di séentu weer bi ni ñu ko baaxoo def waxtu weer wolof amee ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci njiitu sëriñ Mouhamadul Mamoun Bousso feggo ak sëriñ Abdou Diop imam ak waa daayira Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne ñooy saytu lépp lu jëm ci wàllu jumaa ji bi ñoo àndee ak ñoom nag ci wàllu séentu weer bi xam ngeen ne tey jii di eh, ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci àllarba ji ci weeru tamxarit ñuy séentu weeru safar eh, ni ñu ko baaxoo def bu ñu sëlmalee timis sëriñ Abdou Diop imam dana wax ci rajo jumaa ji wax na sëriñ bi nee na nañu séentu weer wi te ku ci xam lu wér nga ñëw yëgle ko suñu noppee itam danañ jokkoo ak ñi nga xam ne ñoo ñuy jàppale ku mel ne sëriñ Bassirou Mbacke mu sëriñ Abdoul Khoudous nekk ca Darou Mouhty dox suñu diggante ak waa Tiwaawoon waaye ku mel ne sëriñ Modou Mbacke si mi nga xam ne moo jiite représentant xalif Zal de Mouride yi nekk ci région yi moom it danañ jokkoo ak moom. waaye danañ jokkoo it ak commission bu mag ba nekk dakaar nga xam ne ñoo nekk ca euh, foofa ci njiitul imaam Diène ak imaam Sakho ak imaam Ndiaye ñoom ñëpp. ginnaaw bu ñu jokkoo ak ñoom ba noppi nag danañ jokko ak sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa waaye xam ngeen ne nag sëriñ bi day wax ne suñu séentoo weer wi nañuy toog. ba julli gee ba noppi teg ci lu mat fanweeri minute soog ko def déclaration loolu moo tax déclaration bi di xaw a yeex moo ginnaaw boo xamee ne nag séentu nañ weer wi ba jul gee ba noppi ba toog fanweeri minit ci lañ jox ko jokkoowaat ak sëriñ bi mu joxe ndigal li nga xam ne moom lañ fas yéenee jëfandikoo ñu maase déglu sëriñ Abdou Diop imaam ni ko euh, sëriñ Fallou Galas si la waxee rek ni ko baaxoo def def nañ ko muy weer wu ne sëriñ bi danañu yabal ca. ci rajo jumaa ji ngir ñu yéene ci wax ñu séentu weer te lu ci waay xam nga ñëwili ko bu ñu defee noonu ba noppee ne danay génn ci bokk di séentu weer wi ak di taatan xibaar yi ci gox yi yàlla dogal na bi ñu ko defee ba gee jot ñu ko kër sëñ ba sëñ bi néggandiku loonu neenu léegi na ngeen nekk bañ julli buñ gee ba noppi na ngeen ci teg fanweeri minute ngir euh, maanaam xibaar yi yu sori yi gën a mën a jege si bi bi biñ ko defee ba noppit euh, farweeri midi bañ ko ci tegee du tee nu jokkoo kër sëñ ba ndax ndigal rek dañ ciy diglu bi biñ jokkoo foofa mu ne waaw léegi jot na kon man ngeen koo yëgle kon ñu xam ne séentu nañ weer yi fu ne ci gox yëpp taadal xibaar yëpp waaye nag gisuñ ko fenn kon ñu xam ne suba ci alxames ji mooy mett mooy mottali weer wi weeru muharam bi bu ko defee ajjuma di benn fanu màggal gi di safar nga xam ne kon day mel ne màggal gi alterné lay doon ndax bu ne ajjuma gaaw a dibéer bu delsee mooy leen fukki fan nga tàmbaliwaat altine bu dikkee di juróom-ñetti fan yi di fukki fan yaak juróom-ñett kon euh, ne ko ñëpp xam-xam ne weer yi feeñut suba day mottali dañuy mottali fan weer yi fan yi ci alxames ji ajjuma mooy benn fanu <coughs> safar na ko ñëpp xam waaw kon nag na xam noo ngi ñaan yàlla nag dara yi Sëriñ Tuubaa Euh, sëñ Mountakha yàgg fi lool te ànd ak wér ba li mu yéene ci yoon wi lépp màggale ko te nu nu yàgg ci gannaawam te ànd ak xéwal ak jàmm ak sutura teraanga te di sant bokk yëpp nag euh, ñi ñi ñi teew fii rajo yi ñi ci limu ñi jëriñu lim waaye bu ñu tàmbalee sëñ Fallou Galass Sylla rek ñi ci des ñëpp xam na leen waaw tey sant bu baax a baax a baax a baax waa Muxaddamatul Xidma ndax jàpp nañ ci bu baax a baax a baax ñoom ñu ngi ciy def seen yëf bopp di téléphoné ci gox yeeg fu ne ñu di fa kii kon nag ñu ngi leen sant bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu salaatu llazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani ala maahin maal absa wa safar